wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatullahi summa alayhim li yatimana xatab al islam wal ihsana bi hurmati siddiqi wal faruqi judliya bil ikhlasi wat tawfiqi dafa am lu ci ko nag moom laa bëgg wax eh, mu jëm ci liggéey bi eh, ginnaaw danoo fas yéene jeexal suñ lépp jox ko sëñ bi fas ko sax dakk ci liggéey bi liggéeyal ko eh, liggéey bi moom mu ngi fii du fi jóg bu ko noppee ci lii dem ci lii bu noppee ci lee dem ci lee bu noppee ci lee dem ci lee liggéey moom mi ngi fi du fi jóg kon kon kon noo war a noo war a noo bu baax te bay xel lépp waaw waaj ba jekk benn benn benn bañ noo jóge ci genn wet te fekku nu jekk nan taxaw ba nan jekk rek ci liggéey ak lu mën li ci dolli ko nag moo di moom itam loolu lépp liggéey bi xëy na moo ko indi ndax yitte liggéey bi yitte rek am solo yitte ji nga xam ne eh, def nañ ko ci liggéey bi eh, kon dafa mel ne kon soññ bu rëy boobu xam ne liggéey bi loolu ab soññ rek la kon soññ bu rëy boobu dafa mel ne eh, am na leneen lum mu indi moom laa bëgg a wax ak bokki bokki sama bokki bopp yi ñi nga xam ne eh, ñi nga xam ne eh, ñoom la ñuy tudd di tudd sëriñ bi ñooñu dëgg la mun ma leen yaakaar tudd ay bokk ci saayir waaye sëriñ bi amul mbokk waaye nag si yàlla mooy def moo tëral lim tëral itam il faut nun nangu ko il faut nu jiital ko kon eh, bokk yooyu ma bokk sëriñ bi rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ñu nekk ci bopp yi ñooñu wax ji ñoo ci jiitu ña ca dolliku di mboolem mboolem bokk yi mboolem bokk yi di bokki taalibe yi mboolem bokk yi di bokki taalibe yi wax ji eh, bu jógee ci ñooñu ci ñooñu ci la jëm jëm na ci mboolem bokki bokki mboolem yoon wi moolem bokki taalibe yi mboolem murid yi mboolem dongo yi wax ji ci noonu ñooñu ñun noonu noo ko bokk waaw ji nag mooy di leen yëgal ne eh, waxtu wu ne noo ngi ci waxtu wu ne noo ngi ci liggéey bi tey tey tey dégloo lu ñu war a liggéey eh, bi lii nekk ci bii bi lii bi mu noppi nag mel ne am na loo xam ne eh, fitnaal na ma fitnaal na ma ab diir ndax xam naa ne am na lu ma yëg am na lu ma lu war a def te xaw ma ko lu mu loolu nag eh, ci diir bu gàtt ci la daal sama xel daal dina yar ci nga xam xam ne ki fi nekk suñu xel du ci jóg mukk suñu dara dara dara du jóg ci moom waaw mu ci biir ji ma bëgg nag nu jógaat ni mu jóge woon ci lii rek ak nan daa jóge nu jógaat nag beneen jóg jóg goo xam ne dana dana dana daal suñu xel ci ne dana am li mu bëgg loolu moo posté bi rek ak yitte ji jëf ji doon ñëw euh, jamaa ji ki fi nekk ci biir dafa war a tax suñu xel du ci jóg mukk moom ak lu xëy mën a xew rek danoo war donte dañuy xëy sax di xëy di war jumaa ji di xëy di xëy di ko wër ngir fàtt ngir sàmm ko ngir bëgg bëgg yéen am yéene sàmm ko rek ak ñoŋal ko loolu daf ko doon jar gannaaw loolu itam ñu tabax taf tabax gi tabax yu tabax gi ay yëf ay ay matériel rek la dafa mat di nemmi ko fa tabarakallahu ñi ñu jiitu gaa baax yi nu jiitu di jàmbaar di mat taxawaay lu war def def nañ ko ba ci suñu jataay bii jumaa jaa ngi nii léegi nga rafet lool sëkk tubaarkàlla lu mat a def def nañ ko waaye nag ni ma ko waxee rek duñ duñ duñ toog loxee neen waruñoo toog loxe neen te wax du ne buñ seetee dëgg-dëgg dana am dana am amu liggéey waaw kon jumaa ji moom bi sama xel demee nag eh, sa li li li li sama bopp te man ma defe woon ne daal man cat naa dem dem na ba noppi tey jekk naa itam eh, waaye eh, ah, loolu lëjal ma ci sama bopp ak sama xel man di ko xalaat ba ma xel ne yar rek ci lii jëmm ji tabax gi li wër tabax gi te muy te muy te muy loo xam ne nag li wër tabax gi képp dafa jar jóg ba nga xam ne moom moom moom lépp moom lépp lépp lépp lépp lépp nëx-nëx bi yëpp nëx-nëxal yi yëpp mi ngi ci mi ngi ci ndax mi ngi mi ngi mbënd bi kon yett yooyu la moo boole ci sama bopp mane ne ah lii kenn man war naa ko yëgle samay bokk samay bokk samay bokki taalibe moo tax nag ma ne. booy boo ginnaaw bi lii dale nañ jógaat na ñëpp ñëpp ñëpp xam ne jógaat nañu jëm ci wéréel li wér jumaa ji wéréel ko ba mu wér bu fon ko ne daan xaw ma noon a karo itam ko ba ba noppi nu karo ko sax na def ko buñ ceen buñ buñ ca noppee nag jëm ci tabax gi seet ko bu baax a baax a baax a baax a baax lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci lenn lenn luñ war a dema defa defaat demaat dellu delluwaat ci loola ñu def ko maanaam ñu xool ko ñu xool ko ci ci biir eh, ndax ndax ndax ndax ndax ndax ciment ak fer rek la ciment rek beñ rek la ñu seetaat ko ba xam loolu am na ay sikk sikk wala amuñ sikk lu ci boo amee sikk ñu defar ko waaw seet kaw gi moom itam lu ca lu ca mat lu ca mat a jekkalaat defaraat ñu defaraat lu ca mat rafetaat ñu rafetalaat ba lépp nepp moo noppi nu nekk nu nu nu nu nekk ci war a nekk nag waaw sax dakk ci jaamu yàlla man ni ma koy waxee nag sama wax daanu gat mooy jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi ci dun léppi lu baax jaamu ko man noonu laa ko gisee man noonu laa ko gisee hmm. nu daal di delluwaat bu noppee delluwaat ci loolu <laughs> sax sa dàkk nag tey dégloo tey xool <laughs> kon nag bokk yi bokki taalibe yi ñe seeni waajur yu baax ñi jëkk a ànd ak ñi ñoom ñi jëkk a ànd ak ku baax kii teg baax yëmul fenn ñooñu gannaaw ñi ñuy tudd tudd sëriñ sëñ Tuubaa nañu yëg loolu nañu yëg ne noo sëñ bi nañ boobu liggéey c'est suñu kenn lu ci waaye nag na ko def nag na ko def di ko tegal yëgal bokk bokk jullit yëpp bokk jullit yëpp yëgaluñ ko lul yëgal yëgal leen ne noonu dañ noo ngi faf sax dàkk ci fas yéene sax dàkk ci liggéeyal liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci lislaam loolu jiitu noo koy liggéeyal fas yéene ko ci lépp waaye dañ ko waaye li ci jiitu nag fas sax dàkk ci liggéeyal ko ci di ko liggéeyal ci lislaam ko ci liñ koy liggéeyal yeneen yeneen yin koy liggéeyal waaw kon nag noonu rek la demee nun daal incha allahu euh, foofu la nekk loolu ci loolu lañ bëgg a nekk noo ngi ci xalaat ji ak nanuy koy mën yoon wa nañ mën a aw ba ba am bu ko gisee ba aw ba gis yoon wa nu daal di daal di yoon wa ànd noo mu aw ci yoon wa na mu mu gën a gaawe na mu gën a sotte na mu gën a rafete na gën a mate noonu donc kon na ko na ko na ko ñëpp dégg dégg jubluwuma ci dara ku na ko na ko ñëpp dégg yeesal seen i pësteef yeesal seen i pësteef yokk seen i itte gën a rafetal seen i xel te jóg nag rek fedd suñu laxasaay ci li jiitu lépp nag nanu gën a jiital yeesal sunu jaayante ak sëriñ bi dayman bu bëggoon ma wax waaye man dama mënta wax waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke waaw kon nag nan ñaan rek loolu la ñaan rek baaxul sëriñ bi ngëneelam ci dara jàmm suñu bu noyyi suñu borom gën a gàtt nag tawfeex sëñ bi tawfeex sëñ bi rek mooy suñu moo moo moo moo moo ñuy lépp dig defar ñaan bu baax a baax a sàmm leen sàmm njaboot aar leen ñaan suñu borom tëbb leen a wér leen a yokk fan yi ba mu gën a gudd lool ndax ñu gën a mën a liggéey sëriñ ndax ñu gën a mën a jeex ndax ñu gën a ñu ëpp jeexiti jeexiti liggéey sëriñ ñu ñu bàyyi mu ñu fi nekk di ko dolli muy muy wéy di wéy ba bis bañ ci yàlla na ko suñu borom عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليتيمانا خطاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق يدلي بالإخلاص والتوفيق